ziar kontaanee jox cër mbokki àdduna ziar kontaan ñooy jox cër mbokku Sénégal konaa mbokkum réew mi ci seen seen C'est le TV ci seen émission li ci mbedd mi mbedd mi ak li mu ëmb feggoog sama doomu ndey suma xarit tàmbalaay saa béy bi le grand soudeur métallique nga xam ni weñ da koo déggal ba lu ko sant mu def ko muy alaaji mbay logique di bëggee diaspora bi yëpp ñoom Laurence Mendy ñoom Adama La Lyon ah patriote diaspora bi patriote ànd bi bi fu ne lañ ñuy woowee duñu bëggee Alioune Seye de le grand champion da lay bëggee Alioune Seye 2 day bëggee Naaru Sokaas ñoom ñëpp dañ ñuy bëggee di bëggee Mbaye di bëggee waxtaan wi nga xam ne ñu ngi koy def fii ci C'est le bon TV sëy man lay wër sëy yow lay ah, na reetaanloo yi nga koy reetaanloo dafa mën a ñàkk nee na war ngaa mën a wax sa dëgg te doo reetaanloo kenn mais dëgg yi ngay wax ni nga koy xoromee di ko suugar muy coxataan seen xol yi nee loolu la yéem ndax mën ngaa am xam-xam te doo mën a jàngale. kon Seydou déglul nee na loolu mooy pédagogie. ndax mën ngaa am xam-xam te doo a jàngale. kon mbay mii nekk te xam-xamam rek nekkul ci tekkul ci de. da ngay dégg dëgg sa xol di neex. ah nga mën koo dëgg buñ suukar daal ngay wax. dëgg buñ suukar. moo tax kon ku am ñaari junni yoo maye mbay mayal ku la neex. Ah. waaye bu dee dëgg dëgg rek moo la tax a jóg. jàppal c'est le bon TV seen émission mbedd mi donc tey nag ñu am tiis bu mag boo xamante ni dafa wàcc sunu kaw Eh, sunu wayjur wu góor sunu maam sunu lépp imaam Alioune Badara Ndao yàlla jël ko ci jël bi ñu daan jël ñu baax ña rek ak ñu bon ñëpp rek kii jële mooy jëlee moo tax may may wax ni balaa ngaa xam ndigal a baax nga xool ko ci malaatal mawti rey nit ni mu nekkee deli te day xëy di rey nit ñi te du mujj fenn waaw moo tax moo tax ndeysaan sax ci ndigal rek a wóor ndax malaatal mawti jël yi muy jël nit ñi bu du woon ci ndigal la ko teg heure bi pelanti dinañ ko palante du ko dab mo lañ aha mhm. wa geewel bi lan la mais mbay est ce xam nga ni wax ay mbokam la nuru xana xamoo lolu kon ñoo ngi papa imam Alin badara ndaw jambari l'islam euh, euh gan ga daan nit ñu bax ñi bi daan yonenti nako mhm. waye nak tituñ ci mom ragaluñ ci moom ndax nekkinam bi mu nekkee woon ci Sénégal nekkin bi mu nekkee woon ci diine euh, waaye nag nang ma baal mbay waaye dee bi mu génn àdduna bi mu génn àdduna génnewu ma ci nguuru Sénégal man kono loolu sëbla la ko bënn nga ca biir ndax Imaam Ndaw dañ koo bàyyi dañ koo fekk muy jàngale alxuraan juddoo Sénégal mbay yaroo Sénégal mbay màggee Sénégal jàngee Sénégal xam-xam bu mu mënti am Imaam Ndaw Sénégal gii la ko xamee diine gu mu mënta xam di ko wax ci Sénégal gii la ko xamee ñu xëy suba jiiñ ko terroriste tëj ko ci kaso bi 2015 mille 2018 ba ko na ko defuloo dara. ko di ko jommal ci kaso bi lu ne. di ko torturer ci biir kaso bi. di ko pompe di ko tefal ay ay di ko tegal ay sonore bruit sonore moom moo toog expliquer ko boppam. pour jommal la. bu doon Sénégal dëkku yoon la ñu nekk bi imaam Alioune Badara Ndao toogee ne lii lañ ma doon def ci kaso bi bu doon Sénégal dëkku yoon la. ñi ñi naan man man ñi ma jaaxal mbay. ñi naan ñoom droit de l'homme amnesty international ak ak yelleefu doomu adama yi mais ñoñu xana ak goor jigeen yi kessa lañuy sam ay lo xam lom daa bari. ñoñu ñooñu dañoo tànn seen lom. ñom dal ay guil ay guil lañuy ñuy défendre. ay ay tiaga prostitution ay goor jigeen mais lu toll ni imam Alioune badar ndaw def limu dem ci l'islam ñu xey xey jiñ ko terroriste diko revue de presse nan dray katu nit la kay le dañoo fekk ci mom ay dollars fekk ci mom téléphone satellite te 23000 lañ fekk ci mom ci xaalisu CFA ak makku dóom yooyu ñuy dàqee tool yi mooy mooy mag ñu baax ñi mooy xam ne suñu mag ñëpp dañ am loolu nga xam ne buñu demee ci tool yi moom la ñuy dàqee ko picc yi bu fekkee loolu la ko kon dëkk bi dëkk yi kenn du fa des ndax ñëpp koy da daan bay di dundee di dund Sénégal juddoo Sénégal yaroo Sénégal ba toll ni mu toll ñu xëy suba jiñ ko terroriste Mbaye jàpp ko 2015 2015 ba 2018 ñetti atu kaso xëy suba ne ko demal defuloo dara. ak dinaa dañoo jaaxle ni ñuy expliqué ni mu yoon te pourtant yàgg na leen yàq deru nit ni mu bonee. yëpp Mbaye ak tuumaal gor ni mu bonee Mbaye may naa la am na ñoo xam ne tey bi ñu ñuy revue de presse moom Mamadou Mouhamed Ndiaye TFM bi ñuy revue de presse am na ñoo xam dañoo ne Imam Ndao dafa war a dee ci kaso bi ndax ndax lu bon li doon teg ci deram waaw am na ko ne moom journal bi mu ñëwee da benn waaye benn waayam na ko li ngay dégg def ci ndax instant bi li ngay li ñuy wax li ñuy wax nii mën naa bañ a bokk ak loolu nee ba mu demee fekk àtte bi imaam ndaw wax gars yi dégg ko mujj gi dañu ne yow de sa ay li nga mujj li nga mujj li nga wax nii nu mu jaar yoon sax daf ñoo jaaxal ba waa ji na si la xam ne nag journal yi li ñuy wax ak la ak la xew bokkul parce que journaux yi dañoo bëgg ñuy jaay seen journaux moo tax ils sont corrompus dëppul dara dara dara kon nag xanaa mooy li Alpha Blondy woyoon lim ne Euh, politicien mythomane journaliste corrompu chef religieux vendu nee na euh, seen àddina bi Afrique loolu loolu la euh, journaliste yëpp ay ay dañ leen a jënd kon imaam Alioune Badara Ndao tuuma yu rëy yooyu waaye nag nattu alalu jullit la tuuma alalu gor la. tubaab bi mu fi ñëwee su nga bëggoon def ñu bokk beneen religion dañ ko xamal ne ci boppam def mënoo leen sopp def dinaa leen def faux musulman kon Sénégal dafa bëri ay faux musulman ah mais ko góor jigéen kooku tam moom tur bu baax la yam non man kay dama ne Amnesty International droit de l'homme ñi sàkk doomu a maam ak ak yelleef doomu aadama mu dégg imam Ali bu ndaw Alioune Badara Ndaw révélation yi mu def ni lañ ko doon def ci biir kaso bi même un criminel sax koo xamante ne amul amul maanaam raykatu nit la sax waruñu ko to waruñu ko toroxalee noonu ci kaso en tant que jullit mu toog te Imam Ndaw amul fitu toog di fenal état du Sénégal di fenal di fenal euh, justice bi te di leen waxal lu dul dëgg bo ñu baal ma ci mémoire bi amul droit di leen waxal lu dul dëgg ndax ñemewul génn kaso naan daan nañ ma def lii ci kaso bi te defuñu ko ko. Imam Alioune Badara bu fekkoon li mu def li mu wax tegul ci yoon kilifa la ñoom juste ñoo koy fekkaat këram jël si ko ndax danaa ne danañ danañ ko la mën xanaa ma Sénégal. waaw léegi Sénégal lu tax ñuy seetaan tamit ñun tamit peuple bi tamit uñaa euh, Babacar ñuy seetaan yenn doomu aadama yi nga xam ne dañoo nekk ay yu influent gën ci askan wi di gindi askan wi xam li xew ci àdduna bi en tant que imam di ko révéler di prêcher chaque àjjuma di yee askan wi ñu leen di seetaan ñu leen di toroxal wala ñu leen di rey. parce que kuy dund sa nal du bëgg nga yeew te ku aj ku séen ci kaw lay bañ ñu dañoo xam ne quarante pour cent Sénégal buñ jàngee dañu dañu am problème te instant taux bi yegg na foofu ndax moo tax politiciens yi ne mënut kon Imaam Ndao dafa bokkoon ci ñuy yeete Imaam Ndao defar kat ci a ber daaraam wala mu mën a am entreprise am koo defaroo mais Mbaba nga tax euh, ci part de responsabilité ñun askan bi parce que nit ku mel ni Imaam Ndao dayoo bi mu am ci l'islam jaay gi mu jaay boppam ngir yónnante bi salaam ngir l'islam est-ce que waroon nañu seetaan tamit ba justice du Sénégal def ko ni ko def est-ce que ñun tamit amuñu ci part de responsabilité. amuñu ci part de responsabilité mais. parce que Ousmane Sonko tay bi ñu taxawee ne du fi amé amé wu fi. mais bobu dañu ko dafa fekk. ñu commencé comprendre lu ëpp ah si Sonko lu fekk lu ëpp tour fa lu touro mais ñi ngi rod rodd dugal ndax Karim dañu ko rod rodd ko Khalifa Sall rod dugal Imam Alioune Badara ñu dugal rodd dugal ko Sonko ñu bëgg rod rodd fekk fi affaire bi fees lolo ball nak mais kon mbay kon waratuñoo seetaan ñu jàpp ñu jàpp nit rek tuumaal ko rek tëj ko ci kaso bi torture ko wala ñu poisonné ko ñu xëy suma ñu toog un an trois deux ans trois ans mu dee après ñu naan yàllaa ko dogal xanaa xamooy saa malaakal mawti fi mu toll ak am man leer na man am na njaaxle ci Sénégal parce que ñu ngi excès gul woon nañ ko ak gor gor gor ñu dugg ci jamono

maanaam amul dërëmu Sénégal bu ñu yëkkati teg ko ci loxo imaam Alioune Badara Ndao te dañ ko perteloo temps trois ans trois ans yooyu ñaata xale ñoo ci waroon mokkal alxuraan ñaata xale la ci mënoon a defar ñaata société la ci a defar ñun tamit Sénégal tamit Babacar damay joxe part de responsable man de bi ñu ko mujjee woowaat dañ maa joxe woon sama bakkan mooy bi ñu ko woowaatee bu mujj bi damaa taxaw ne bu ñu ko jàppee man dañ may jàppaaleeg moom parce que jàpp deux fois di ko tëj ndax lan jot nañ ay financement terrorisme jot nañ ay engagement ci nouvel ordre mondial ñu ne nañ def mais dégg loolu foo la léegi kon ñun ndaw ñi mbaa waruñu jël suñu responsabilité yenn patrimoine national ñu protéger leen suñu bopp mbay de loolu laa lay laaj ñun waruñoo am fulla yenn patrimoine national yi nekkal Sénégal di xeexal Sénégal di dimbali Sénégal ñu ñu leen suñu bopp dëgg ñu ne ma xale nga maanaam damay wax ñun wax rek tey damay débat ba wax ba wax loo xamante ne man ñëpp dañu naan kii wax dëgg la ma ne ko yow rek bu ñu la ko rajo la ñuy wax kenn du suñu image yow li nga wax la ñuy foog yaay xale bi mais mbay dañoo jëmm magum xel lañ soxla xanaa xamoo chaque jour ma gis nit fëgg magum jëmm la ñuy doyee magum jëmm xel lañ soxla la kon dama bëgg ñun ndaw ñu aussi dañu war a jël suñuy responsabilité ci képp koo xamante ne avenir nga ci Sénégal patrimoine nga ci Sénégal

ministre de l'intérieur wooy mais ñooñu la àndal ñu am ñi xam ñoo pare si ñoom mais askan est-ce que nous am un tamit bu fekkee ñooñu nañ fi Sénégal ci ci ñu mais mbay xamoo ñu ak Ablaye xamoo ñu askan ci tu justice ak ci RTS ñoo Macky ni même même même effectif bi la tu tu Macky Sall ne tu wax opposant tu Babacar tu mu toll di di te Macky Sall 2011 il était une personne non grata à la RTS ma ni Sonko mel RTS Macky Sall noonu la RTS ah. te ñoom Racine Talla yi moom Babacar Diagne ñoo nekkoon njiit yooyu ñoo doon xañ Macky Sall mii président ne ko wax RTS ñoom tey ñoo ñëwaat ne Macky Sall RTS ñi ko bëggoon xamale ko population ñoo la gën bañ ñu Walf ak seen TV ci demee ne sax doon wax fii sa kër la mais Walf ak fu ne Walf rek la bañ ñaata yoon la dalal Macky Sall ñaata yoon la dalal Macky Sall RTS 2 maanaam Macky Sall RTS 2 nga ko daan gis wal fajiri ñaari télé yooyu ñoo ko promouvoir tey ba mu jot ci nguur gi du jug fajar sa ndax bañ wal tay Macky Sall moy ñew di tëj ay seen TV di tëj ay ay ay wal fajiri di toroxal ay site ñooñu Sid Lamine ñass bi muy wax histoire Moussa yonent Yalla Moussa plateau Sid Lamine ñass la ko doon waxee mom bala noy plateau go toog Sid Lamine ñass tok muy muy muy théorie di théorie ak di baye googu ak xol di ku ñaan ndeysaan dafa yaro dafa dal jaxlu na man tak gis nga tekk danger cëfër cëfër dañ ko ragal rek waaye dara la. ah gis nga géej gi Malika gii amul vague yu lay tiital waaye bis boobu juumee ba yeb ko ba dugg fa fa ngay des li muy par année kenn xamul mu toll. mbay sama xol naqari na bi ma xëyee tey ñu ne ma imaam Ali Badone Ndao génn na adu. kenn dékkul kenn añul. mbay imam Alioune Badara Ndao li mu daan révélé ci société bi mbay imaam Alioune Badara Ndao ni mu comprendre woon li nouvel ordre mondial ak lobby faramason yi ak li ñu naral Sénégal imaam Alioune Badara Ndao tey ñu ñàkk ko Sénégal ñàkk na ko màgg mbay Sonko. may Sénégal ñu man yow xanaa ma ko naan yow rebelle nga. waaw man rebelle man rebelle bu mag laa xam luy rebelle. Ah, ah. way fipp ka ma fipp way fipp mooy ki fipp ci lu dul yoon dañ koo tënk muy fipp ñu dañoo waaw ñu tudd ñu tudd way fipp way bi ci tubaab mu naan ko rébellion maanaam dañuy rébellion ñun duna eh, eh, ñoo am ñoom lu ñu Ousmane Sonko naan résistance résistance bi ya man ci bëgg ci Ousmane ma jàpp imam Badara Aliou Badara Ndaw fexe nañ ba torturé ko boo ko ci kaso bi gor la mënul yaakaar ci jamono gaañu na ñu bëgg jox Ousmane Sonko def ko ñu ne Sénégal yéen lay wax benn benn yi ngeen di fàtte fexe leen koo dajale moo leen tax xam ñii lu ñu nas buñ jàppee kenn toog ab diir jàppaat kenn. mais nee Sénégalais daa gaaw a fàtte ñoom nguur gi loolu la ñuy wax le peuple le peuple Sénégal amnésique on est amnésique. su si ñuy nalaw la ñuy instant bi nii bëgguñu ñu yeewu mais lan moo xew Sénégal yeewu leen lan moo xew. maa ngi sant bu baax sëñ Ahmadou Mbacké Rafahi kenn du moom jaaree ko ci mm, yoonu safar gi ñu nekk ñu ngi ñaan yàlla yàlla yàggal ko fi sëñ Ahmadou Mbacke Rafahi Mbacke mu sëriñ Fallou yàlla na yàlla yàggal ko fi. ak mboolem ku mel ni moom ñun sëriñ Xaadim Ndaar bu sëñ Mbacke soxna Lo. sëñ Mbaye si Abdou. ah sëñ Habib si bu sëñ sëñ Abdou Aziz Dabakh képp koo xam ne rek yaa ngi fi nekk di éveiller des consciences daal di focus ci li xew ci àddina bi mun ci dimbali askanu Sénégal. parce que du ñëpp ñoo ñoo mën a xam ñoo mën a accéder à l'école du ñëpp ñoo am sens dem jàngi ci école yu mag yi du ñëpp ñoo am loolu waaye ku mel ni imam yi ak ñu mel ni porteur de voix yi di chef religieux yi ñoom ñooy mën di prêcher di yee askan wi di leen di leen maytuloo li nga xamante ne mooy enjeu yi nga xam ñoo am ci àdduna bi te baaxul ci ñoom di leen xiir ci li nga xamante ne mooy lu baax te ñooñu ma lim yëpp ak ñeneen ñu dul ñoom ñu ma jàppul seen ngi nekk ci Sénégal di bay waar woowu man mooy li ñu jikko yu bon yi nga gis ñu yëpp mu dem ba ci ñu gouvernement yi nekk ci ñu justice bi tubaab bi da ngay xool ñu gën am doole Sénégal yor économie Sénégal jànguñu mënuñoo woon bind seen tur ñi gën a jàngi Sénégal ñoo dàq sàcc ci xaalis Sénégal dañuy xëy rek amee milliardaire kii war ma wax ma ne ko. Euh, mbay milliard milliard ku ko am alalu mbooloo la maanaam milliard yàlla du ko jox benn nit milliard alalu mbooloo la. milliard alalu mbooloo la mbay <laughs> milliard benn nit mënu koo liggéey ci giiru dundam milliar alalu mbooloo la. bu la yàlla waree jox siwo mu jox la paan dalaa séddalaloo mbay mbay nañu fonk ñi nga xam ne ñoo bëgg Sénégal imam ndaw dem na am nañ ñu nu naqari branche bu rëy a rëy rëy fàq na ci lislaam branche bu rëy a rëy rëy fàq na ci diine branche bu rëy a rëy fàq na ci nite ci nite maanaam imam ndaw waxuma la dara nite gim nite te ni ma ci neex ci moom fii la jàngee fii la amee xam-xam bu mu mën a am imam ndaw fii la ko amee consommé local la ba pare di bay di dundee xanaa xam lañ bañ sëñ Tuubaa local mbay xoolal imaam lépp lu mu mën a am ci Sénégal gi la ko amee lu xëy xëy Sénégal gi mu juddoo yaroo ko nguuru Sénégal googu tey jiñ ko terroriste tëj ko ci kaso bi ñetti at mbay loolu est-ce que loolu xel war la ko nangu mais borom sëñ Ahmadou dégg xasidaay ak ku leen rey lañ yemale bàyyi bas ak baara maa mi dana bàyyi jumaa ji xool na lii sax kii waa réew mi ba moom sama morom dem ñuul boo xam ñoo bokk ci réew mi xam ne bu ma demoon bi moom laay sagoo dem fa sa problème si ñoom ak xool seen jumaa ji Sénégal Sénégal moom importé lu ko jaral lu nekk mbay nag Sénégal dañoo compliqué de mbay ah, ah, mbay Sénégal nag ñëwal tuuti mbay àddina gis la mais mbay Sénégal compliqué nañu xanaa xamoo yonente bi bu wàccoon ci Sénégal xam bu ñëwee di wax xam nga lañ koy wax may ñu yow jàngoo waaw dañaa ko jàngoo instant su ñëwee dina ko noo yow moom kenn xamul sa kenn xamul sa baay. Ah, yonent bi su ñëwee dañ naan ko jàngaloo parce que yonent bi Sénégal gën a naqaree woote. Sénégal li gën a naqaree dimbali. yonent bi leer na ma ni bu doon sénégalais bu ñëwee bu nee xaaral laa ñu ne ko may eh, may ñu jàngaloo dama nga toog ne yow kañ nga fi yow da jàng. nekk boobu instant bu ñëwee bu nee ah, ñu ne ko eh yow xaaral ñu xool kan mooy sa way jur wu góor ba pare yow. bu bu Moussa ñëwee dañ naan ko yow teg toogal na le yow néew du doole nga dañ laa sànni woon ci ndox ba nga juddoo mënoo ñoo yéem. dañ laa for Sénégal mënuñoo bàyyi xeebante bi. Ah, Sénégal li muy yàqal. mu yonent yàlla Moussa bu fi ñëwoon doon woote ñu ne ko yow dañ laa for mayal nit ñi jàmm Sénégal lan moo tax lii. si Imam Alioune Badara bu waxee. dañuy jël teg ne wax. fi mu toll nii imaam Ndaw fi mu génnee àdduna nii la ko nit ñi di doo a xam dëggantaan Ndiaye doog koo wax li mu doon dëggantaan. te imaam Ndaw nekkoon patrimoine nekkoon koo xamante ne nii ci àddina ku ko am da ko war a fonk. man mii Sénégal xamuñu ñu seetaan ba état du Sénégal rey ko. te may tey ma wax la mbay génn àdduna wala torture yi ñu ko doon torture ci kaso bi tey bu fekkee loolu moo waral deewam ñun askan wi am nañ ci part de responsabilité. parce que les magistrats et la justice ils exercent la loi au nom du peuple sénégalais. xanaa xamoo ñi yor nguur gi yëpp suñu alal lañ leen fay gis nga ñu yor justice bi yëpp loi bi ñuy bi ñuy teg askan wi bi ñuy teg ñenn ci ñun ci suñu tur lañ koy leen koy tege. Résistance justice bi nee j'agis là xamal lan la procureur bi da wax j'exerce la loi au nom du peuple sénégalais déggoo ma de Ahmed Ndiaye Ahmed Ndiaye xam lan la ñu il exerce la loi au nom du peuple sénégalais manam ñom nee dañuy exerce dañuy def loi bi ci turu askan wi kon xamal ni mbay képp kuñ tecc ci kaso bële te defuloo dara ñun am nañ ci part de responsable mais Sénégal Sénégal dal mu ñi Sénégal dal ko xamni yaay ñi réew mi boo xam ne yaa ngi jéem wax alal réew bu fu nekk bëgguñu la xanaa xamoo Serigne Touba li ñu jiñ Alioune Badara Ndao moom lañ ko mujjee jiñ Ahmadou dañ koo jiñ loolu ba ba ne ko dem da ngay woote a dal suñu kaw da ngay faxar fetal da ngay fetal jihaar buur ko setal dama nga Imaam Ndao li ko Macky Sall jiñ ba teg ko ci kaso bi loolu la tubaab bi jiñoon Ahmadou ba exilé ko man ngeen di

fédère bi moo moo moo seen mag ñëpp. fédère dugg ci dëkk taal dëkk bi yëpp. ci mag ñëpp moo leen rey laa boo ko ba dindee teg fa keneen ñu dafa soof lii fi la ko fekk naa nga magi naa nga pour comme fédère kan moo mooy mbay fi ñu koy tëjee mooy fi ñu koy tëjee mooy fi ñuy tëjee mbir yi mbay mooy dafa am benn maire bu ñu jékki-jékki rek gis ko mu yéeg mu yéeg ci benn fenêtre <laughs> troisième étage réew mi réew mi yaatu du du saako de. waaye li si nekk xaju sax xaju sax si ay saako. mbay damaa bëgg a wax léegi. waaw Kapoo defal naa ak yow. waaw dégg leen rek dañuy wax dégg leen dégg leen. ci aas bu mu am. xaaral ma jox kii caabi mu dem mbay waxal àdduna ba jox kii. aas bu mu am. mën na lekk ci kaw cholestérol. non avant la avant avant la ñu jox. bu ko ca kaw avant la jóg jóg. troisième. ñu naan trois ñaar quatre. troisième. mais yow escalier sax mag mënu cee yéeg wax man am fenêtre mbay. baa xam ne réew mi. mbay est-ce que xam nga ni. ndënd ki sabar ba ñu bëggee siiw lañ dem ngéwél lawbee seen ca lawbe la cosaanoo mbay bañ bëggee siiw lañ dem ngéwél tabalaay seen maam ndax day tëggal lislaam mbay waxala réew mi ma jox kapoo caabi ji sonal na moo kapoo mais réew mi kapoo sonal na moo Kappo ah. solal na ma. li si nekk. xaju si damaa bëgg nga déglu ma. na ndekki sabar ba nu bëggee siiw lañ dem ngewel. pourtant law mooy seen maam ndax tëggal lislaam kon damay faral di wax géwél bari wuti wax ay mbokkam la nuru. Sénégal naqari wut a waxtaanee. maire bi dañoo jékki-jékki séen ko ci kaw mu toog fa. fa mu toog. fa mu toog mbay hmm. yéem na àddina mais dafa am benn histoire ba mu mosoon nettali moo tax ba ma déggee loolu ñi koy jiñ dëmm yooyu dama leen xaw a condamné hmm. mën naa bañ a doon dëmm may hmm. ndax wax nga ne sa baay am na benn koo xam ne gis na ko màgget la woon waaye bu ko rab yi dikkalee day day day day day mel ni day gaaw waa ma ko doon nettali day xelu nan la tudd kooku kooku mu ngi dëkk fii ginnaaw lebal tur bi waaye nee nga da daan gaaw lool te mag la woon waaw mu mu mu dox ñaari paa génn këram mais bu ko rab yi mu da daan xelu mais li ci jaaxal. mais maire bi tamit est ce que nekkul lu matt lu matt kooku ko xuri. non mais maire bi kooku si suuf la. mbay réew mi est ce ñu ngi lay gis. waaw waaw ngi waaw. lay te bu ko ngi mais la première fois ñu gis kaw ko te sama bàyyi daana wax ni ma wala guddi de boo ko sa génn ga mbaxane doon te du dem ama biddanti daa am biddanti ya da kon ndaw si daa biddanti ci kaw xaw ya, ma dem bu ko doon waaye biddanti daan day am xaw fu fu fu fu fu dugoon biig nag waaye biddanti am na moom Dakar Dakar dañ fay daje rek mbay Real Madrid mbay Dakar bi ndax la lu xew rek ah. nañ lu mën a xew rek nañ xam ni ne ci njub rek a wóor lu mën a xew nañ xam ni yaakaar yàlla rek a wóor fu mu mën a ne nag kawe na lool waaye na ko leer ni te mag mag seen duñ fa mag man bu ma juddoo ba léegi mosuma baa seen mag ñi ma mag seen duñ fa mag ñi ma magaan magaare mag seen duñ fa mag mu ñu xëy gis fa mag ah Kora loolu da mbay mbay bu bi auteur bi neexut a estimé. non loolu ay ay. mbay maire bi ni mu def ba yëg foofu maire bi ni def ba yëg foofu loolu. loolu du deñ sama xol ba sama xel mi ba àdduna du tukki nan la maire bi war a def ba yéeg foofu eh. ku ma laa yemale mbay man naa dag di la jox rek mais xol maire toogee mbay mbay nag waxtaan jot na yaa mbay waxtaan jot na yaa quelque chose non mbay waxtaan jot na li bàyyi léegi ñu leen koy laaj ci commentaire yi li ëpp sama bopp ëpp bopp mbay logique ci mbir maire boobu ñu xëy gis ko mu toog troisième étage dafa mu toog neexut a toog waye nak bo fa toge it sa xel war ta dal waye nak gis nañ tok na fa ta xel ma dal na ñun la ci xel dal am sa ko tere la nek <laughs> mom la xel war dal mais ñun la mu si ne xel dalatul yàlla na nu yàlla yërëm te loo si ne ne dañuy tek téere bi sa sàppoon mu ko mu ko jël yalla baax na takk si musóor ga yere ba tak musor yalla baax na musóor boo ko jàppee guddi yàlla sa bay waxon na lool golo bo golo bo japp ci musor gel géen nga musóor mbaa mbaxal yàlla baax na léegi léegi ngeen ngeen dimbali ñu rek bu fekkee am ngeen tontu li ci commentaire yi ngeen dimbali ñu ñuy jaalewaat imaam Alioune Badara Ndao euh, li muy logique logique mais maire bi nee na maire bi fi mu yéeg logiqueul waaw mbay nag comme moo ko wax nee na mbay nag mooy mbay logique nee na li muy logique logique càmbar na xelam ba sonn waaye nee na jàpp na ni fa maire ba toog ci kaw ak aas bi mu am ak xel mu dal gam fa toogee ak à ak heure ba mu ak ni mu bi di ñëwee te nelaw ba daanu ak nelawul ba daanu di xaar nit ñi ku ko wàccee di xaar ku ah, lu lu si ah, Oma <laughs> maam loo xam pour baare ndox la mais lan la fa nit ay bu fa xale sax ba tey mënuñu ci waxtaan mais lii ku am ñaari junni yoo maye ah. mayal ku la neex waaye ku bëgg a dégg dégg jàppal C'est le bon TV asalaamaaleykum. bu fekkee sa bopp baax tamit bu jaay ko <laughs>